Nous délégation président de la république son excellence Macky Sall ministre de l'éducation nationale Cheikh Oumar Anne avec le ministre Moustapha Diop di maire Louga président de ko de lu jëm ci euh, développé ak yaatal industrie qui ci réew mi le ministre Pape Amadou Ndiaye meilleur meilleur artisanat ak transformation du secteur informel avec le gouverneur Louga

nuyoo yi gën a màgg di ko teg ci sa loxo di nuyu tamit mbooleem njabootu Cheikh Alhaji Umar Foutiyu Taal di nuyu muxaddam yi ñu fi fekk boroom xam-xam yi ñu fi fekk ak nitu diine yi ñu fi fekk yépp di nuyu taalibe yi ak mbooleem ku ñuy gis wala muy dégg suñu kàddu muy jaar ci presse bi ñu leen di wax di teg nuyoo bi ci sa loxo mboole seen ñooñu ma lim ñëpp asalaamualeykum wa rahmatullah wa taala wa barakatuhu Serigne Cheikh président de la République, son Excellence Macky Sall et premier ministre Amadou Ba ak membres du gouvernement seul solo président Djok Ziarabi, Mota, Binko de biñ ko dëgnalee képp koo xamante ni service ak sa teewaay ñu yittewoo ko mu jëm ci ziyaara bi président joxe na ci ndigal ñu sóobu ci te yaakaar naa ni li ñu dégg ci bëccëgu tey dal na xel ni ni ko bëggee woon jëmin suñu kéem kàttan pour defe ko noonu bis bi nag bisu ziyaar la mu nekk bis bu mag ci niñ koy waxee la famille omarienne doon bis boo xamante ni taalibe yi dañ fi daje xam naa bu ñu mënee dindi effort yi jërëjëf yi di fi daje di taataan leer yi fiy bawoo ngir mën a gën a suuxat seen xol ndax bisu ziar nitu yàlla wala bisu ziar bërëb bu yàlla gërëm li fay bawoo ci ay ngëneel mooy yeesalaat jikko yi yeesalaat pas bi te loolu mooy li nga xamante ni moom la Cheikh Alhaji Omar Foutiyou Tall liggéey fii ci réew mi waaye loolu la liggéey ci penku jant bi loolu it la liggéey ci soow jant bi fépp foo xamante ni taalu diine waroon na fa Cheikh Alaaji Omar Foutiyou Taal taal na ko loolu moo tax dundam def na ko ci xam xam-xam def na ko ci jàngale def na ko ci xeexal diine yu mel nii waaye nag loolu daf ko liggéey bàyyi ci teg ko ci ay loxo yu wóor ñu ko teg ci seen ay loxo sàmm ndonol yi ba ñu mën a teewee jataay yu rafet yi. di fi yeesal xam-xam di fi yeesal pas waaye tamit di fi taataan loo xamante ni ba déwén ak jàmm dinañu doy yóbbal ci suñu dund ak ci suñu diggante ak suñu borom ak suñu diggante ak suñuy morom loolu mooy solo si jataay bi moom bi moo tax ñi fi jote yëkkate ay kàddu yëpp gis nañu li nga xamante ni sottil nañu ko ci fàttaliñu ko ci Cheikh El Hadji Omar waaye fàttaliñu ko ci doomam ak sëtam yu baax lool loolu nag sëriñ bi euh, ñu ngi sant bu baax ndaxte yaatal nga joxe nga kàddu ñëpp leeral nañ son excellence monsieur le président de la république Macky ci lool la nekk ci wàllu li ko yàlla dénk muy wàllu état ci wàllu état lepp lo xamanteni diine ajoon na ko taxaw ci keuy mi ngi ci lolo tax mu programme bi mu tuddé programme de modernisation des cités religieuses Cheikh Alhaji Omar jikko la tabax pas-pas la tabax diine la taxawal diine la xeexal lolo tax président de la république xam ni keuy yi fi la ñuy jikko keuy yi defaree pas-pas koom-koomu adduna amul njariñ bu ko jikko bu rafet lawul bu ko diine lawul amul njariñ te loolu yéen la ko yàlla dénk mu doon doon loo xamante ni téye ngeen ko téye rafet. àdduna bi fépp fu taalu diine taalu mu doon mu def ko waru ba ñëw dugal fa mat ngir taal bi bañ a fay ci loolu ci la sukkandiku ba kër diine bi mu munti doon boo demee di nga gis li fa def ngir yar bi nga xamante ni yéen di koy yar njaboot bi di ko yar population yi bañ a booy mukk loolu nag moo taxoon mu yabal ñu fii ngir bokk ko teew ak yéen ginnaaw bi mu fi bawoo ci bëccëg di gën a taataan xam na ni naka jekk ci loolu nga nekk ñaan ngir gën a jàmm sax ci dëkk bi ngir gën a bennoo sax ci dëkk bi waaye ngir kaaraange ak naataange gën a sax ci dëkk bi damay bañ a guddal ndax xam naa ni toogaay bi yàgg na maa ngi sant bu baax di gërëm bu baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa taala